waxtu jot na ba tegal fanweeri simili ca résidence Abdoulaye Baye Yoro ñu gën ko xam ca kër gana ca Medina Baye tey la dibeer ñaari fan ci weeru octobre atum 2022 yéen a ngi seen juróom ñaari lu tomb seen yéenekaay bi di journal de la fayda assalaamu aleykum na lépp bàyye na lépp bàyye na lépp bàyye yaa bàyyi ñasi yaa bàyyi ñasi yaa bàyyi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara yam yene yéene digte leen li gën a seen bi di journal de la fayda dal leen ak jàmm seen journal de la fayda dikkal na leen na ci ñaari xët bokk na ci la gën a fës ca xët mu njëkk ma bataaxalu xalif général de la fayda bi weeru gàmmu wi ak ni muy doxee ca Medina Baye wàccaayu gàmmu ga ak defaraat mbedd ya njànguma alquran ak la ca sëtub Mawlana Cheikh al Islam ba def muy téeméer ak ñaar fukk ak juróomi xale yi mu jàngale ba ñu nekk yaafisul quraan ba jot nañ seeni lijaasa ñaareelu xatma da nga ca fekk CND bi ñu def ngir waajal gàmmu international bu Medina Baye 2022 da nga fa fekk discours bu xalifa général bi bi muy joxe ndigale ngir ñu tàmbali bépp yëngu-yëngu bu jëm ci gàmmu gi waaye da fa fekk. Euh, thème ya ñu war a waxtaanee ca ñeenteelu édition symposium mu tàmbale ko ak bataaxalu xalifa général de la Fayda Cheikh Mahi Ibrahima Niass bi weeru gàmmu wi teroo bataaxal baa ngi mu ne maa ngi ndokkeel Ibrahima weeram wa fenk na weer wi nga xam ne taaram feeñ na ñeel way xoole yi weeru gàmm wi nga xam ne ci la Muhammad ñëw ñu amee ca mbégte ay njubam daldi mat waa adra Ibrahima ci njiital xaadimul umma Cheikh Mahi Ibrahima Niass al Khalifa président de l'Union islamique africaine mi ngi fésal mbégteem bokk ko ak umma bi yëpp ak mbooleem xeet wi e, ci feeñ gi weeru gàmmu wi feeñ di weeru juddu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxalifa cheikh maay ibrahima Niass mi ngi yëgle ne gàmmu gi jàpp nañu ko gaawu juróom ñetti fan ci weeru octobre atum 2022 yemoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awal atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent bi dikkal na leen ca wàccaayu gàmmu ga ak Baye Cissé mi taxaw temm ci defaraat yoon ya liggéey ba tàmbali na keroog talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ca weeru septembre ca Medina Baye dëkku Harifia lii dugulee ci Baye Cissé moom taalibe Mawlana Cheikh al Islam bi ma nga ca waar wa mbedd ya lay xosaat di ko dëx ak béton ak i muul rawatina la wër jumaa ja yëral kàddu yi bàyyi si rotal bi ñuy door liggéey ba nee na Mawlana Cheikh al Islam am na ndaw yoo xam ne mën nañoo defar Medina Baye ba mu ne boy duñu ci xaar kenn rawatina ci wàccaayu gàmmu gi dikkal na leen ci mawlid ga ca Medina Baye waaye jukkil na leen yenn ci ay. bayit ci xasib xasidab Mawlana Cheikh al Islam bi ñuy wax saari man waa mooy fi Mawlana Cheikh al Islam di waxee na njëkk amu ko mbindeef yi bëgg yonente bi mooy sama itey xol mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama diine mooy sama aljana mooy sama wéttale mooy sama ndàmbu mooy sama kóolute mooy sama kaaraange ci noonu seen yéenekaay bi dem na ca jumaa yi Medina Baye ja ak mawlid gi niki ni ngeen ko xamee mawlid gi tàmbali na ca Medina Baye keroog ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre keroog ca bésu ba ca al xalif Cheikh Mahi Ibrahima Niass président de l'Union islamique africaine euh, moo doon jiite mawlid ga waaye kii di Cheikh Aliou Niass di doom ci papa as mooy def mawlid gi ren ndax Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci baaba dafa nekk ci tukki. seen yéene kaay bi dikkal na leen ci njàngum alquran ak surtout Mawlana Cheikh al Islam bi nga xamante ni jàngal na téeméer ak ñaar fukk ak xale quran banyudon ñu doon leen jox seeni lijaasa Cheikh Abdoulaye di doom ci ci muhammadul Amin ibrahim Niass mooy borom institut bi ñu Al Muyassar te ñu. te ñu fay jàngee alquran boobule institut moo doon amal juróom-ñeenteelu édition tari alquran keroog dibéer ñaar fukki fan ak juróom lañu ko doon amala ca ndakaaru waaye ca grand théâtre national lañu ko doon defee te boobule édition téeméer ak ñaar fukk juróomi xale yu dëkk ci biir réew mi ak bitim réew lañu doon jox seeni lijaase gannaaw bu ñu taree alxuraan institut coranique islam institut coranique al muyassar lu ëpp juróomi téeméer ak juróom fukki ndongo ñoo fay jànge nekk ci daara nekk daara ju méngoo ak jamono te nguur gi nangul ko ko boobu institut alxaaji Abdoulaye Niass di doom ci Baaba Lamine Niass moo ko taxawal ci atum 2008 gannaaw bu ko ci bàjjanam ñaanalee alxaaji Abdoulaye ibnu Muhammadul Amin Ibrahima Niass Qatar la jàngee ba am baccalauréat gannaaw ga la dem Émirats Arabes Unis fa la jàngee université ba am fa licence gannaaw ga la ñibbisi ci Sénégal doon jàppale bàjjanam Cheikha Mariama bintu Cheikh Ibrahima Niass ca daaraam ja ubbil yéenekaay bi ci ñaareelu xëtam ñu tàmbalee ko ak CND ngir waajal gàmmu international Medina Baye ak soxla yi ñu fa gaar ak jigéen fa ministre de l'intérieur diggee am ndaje la moo xam ne dañu ko doon def ngir waajal gàmmu international 2022 ca Medina Baye ñu nga ko doon amal àllarba ñaar fukki fànn ak juróom-ñeent ci weeru septembre ca dalub ministère ministère de l'intérieur waaye ci njiital Antoine Abdoulaye Félix Diome ak teewaayu porte-parole bu xalif général de la Fayda di Cheikh Mahi Alioune Cissé ak teewaayu COMAF muy. kuréel gi ñu dénk wàllu organisation ci bépp yëngu-yëngu bu aju ci faydu bi bokku nañ fa ña fa teewoon maire bu Kaolack président conseil départemental bu Kaolack ak mboolem chef de service yi ak këri téléphone yi bokk na ca njàmbat ya RTS mi nga xam ne télévision nationale la boo xamante ne ñëpp ko bokk dafa mel ni euh, seen yoon nekkul ci gàmmu Medina Baye international daaw ba ren wane wu ñu dara lu jëm ci gàmmu gi. teg ci seeni xibaar duñu fësale benn yoon lu jëm ci gàmmu Medina Baye International ci noonu Cheikh Mahi Ibrahim Cheikh Cheikh Mahi Cissé moo tëj ndajeema ak discours bu am solo di ca xamle njëriña la gàmmu ak ngëneel yi nekk ci di ci dugal sa loxo moo xam nga ci joxe sa alal wala nga ci yuli sa ñaq muy xam ne ne bés bi bésu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nikaay bi ci ñaari loxatam ba da fa fekk discours al xalifa cheikh maay ibrahima ñas bi muy joxe ndigal ngir ñu door bépp yëngu-yëngu bu jëm ci gàmmu gi talaata ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru septembre al xalif général de fayda xadimul umma président de l'union islamique na joxe woon na ndigal ngir ñu tàmbali bépp yëngu-yëngu bu jëm ci gàmmu gi ci noonu mi nga xam ne ne gàmmu ju dara lu dul jamono boo xam ne dañuy fàttaliku dund yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne royuwaay la te ci moom ak ci alxuraan la diine ji yéggee fu nekk gàmmu ni ko mag ñi doon defee niki ku mel ne cheikh ibrahim cheikh al islam alhaji ibrahima Niass jamono la joo xam ne dañu ci doon ah, dañu ci doon màggal junni judd yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye jamono la joo xam ne dañ ciy fàttali njëriñal la gëm yàlla jaaree ko ci njàngalem yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala xalifa nee na yónnante boobu nga xam ne royuwaay la ci euh, ci yoonu njëpp ñeela mbooleem mbindeef yi war na ci képp kuy xentu yoonu mbaax nga roy ci moom euh, nee na defuñu gàmmu euh, ci ngëlmande waaye dañu koy dañu koy def ngir màggal ngën gi mbindeef mi nga xam ne ak amam ci la lépp soqe ko nee na am na ñuy wax ne màggal juddu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bi daala waaye ñun defuñu leen lu woro ak lislaam ñun daal euh, defuñu lu dul fàttali jullit yi di ñu fi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyee euh, ci noonu cheikh maayi ibrahima ñas ñaanal na sénégal ak ummat yépp seen yéenekaay bi dikk na ak yéen di leen wanale ak thème yi nga xamante ni moom lañu ñu war a waxtaane sa symposium bu Medina Baye xam ngeen ni baaxoon nañu di def at mu nekk ci wàccaayu gàmmu gi ak symposium te bii mooy ñeenteelu yoon bi ren fas nañu yéene def ko ci ñetti fan ci jàpp ñeenti fan ci weeru octobre maanaam suba la nar a tàmbali ci résidence ba Bayoro ñu gën koo xam ci kër gan ay jataay la ñu fay def yoo xam ne dafay dajale ay borom xam-xam yu mag ak ay kàngam ngir ñu waxtaane dundu mm, maam alxaaji Abdoulaye Niass radiallahu taala anhu ak dundu doom ja Mawlana Cheikh al Islam bokk na ca tem ya ñu fa war a waxtaanee ca bés bu njëkk ba yemoo ko altine ñetti fan ci weeru octobre danañ ko waxtaane alxaaji abdoulaye alquran bi ak kàngam ci tafsirul quran danañ ko waxtaane alxaaji abdoulaye Se bi muy xare ak ngànnaaye ba mu mujjee di xare ak ci xalaat bokk na ci alxaaji abdoulaye se ak taxawaayam bu mag bi ci taxawal tarixa tijaan bokk na ci alxaji Abdoulaye Niass ak jëflante yu doxoon digganteem ak kilifay Sénégambia bokk na ci it alxaji Abdoulaye Niass al njàngaleem ci maxrifa maxrifatu billaahi ngir doomu aadama bi nitee bokk na ci euh, jàngat ndénkaane yi mu mujj yu mujj yi alaaji Abdoulaye Niass def bokk na ci it waxtaan ya danañ waxtaane alxaji Abdoulaye Niass al jàngalekatu diine bi charia ak fatwa danañ fa waxtaane jëflante cheikh abdoulaye ibnu alhaaji halawi ak alhaaji abdoulaye Niass waaye dinañ fa waxtaane it cheikh al islam alhaaji ibrahima Niass ak cheikh mouhamadul misri bokk ci lañ fa war a waxtaane ci ñaareelu fan ba yemook talaata ñeenti fan ci weeru octobre ndam li ah, alfaydu tijaani am ndam ci dox jàmm ci àdduna bi ci misaal yoonu Cheikh Mahi Ibrahima Niass euh, ca Soudan danañ fa waxtaane alfaydu tijaani ak union africaine ndax lu mën a am la wala ay xememteef rekk la danañ fa waxtaane it atum 1963 ak tukkib cheikh al islam alhaji Ibrahima ñas euh, bi mu defoon te waroon àdduna bi yëpp danañ fa waxtaanee alam bi ak fayda ak ndénkaane ci Cheikh Ibrahima Niass joxe woon danañ fa waxtaanee taxawaayu Medina Baye ci xilaafa ak Alhaji Abdoulaye Niass ak xay wu ma fayoon diggante Sénégal ak Mauritanie nga xam ne ma nga amoon juróom-ñetti fan ci weeru avril 1989 ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet 1991 danañ fa waxtaanee it faydu tijaani ca Burkina Faso. Euh, ci yooyu le bés danañu fa màggale kilifa yu màgg ci faydu bi muy Thierno Assane Deme euh, maam Ibrahima maam Ibrahima Fall ak euh, Cheikh Mouhamadul Misri kii lëkkale waxtaan wi kii lëkkale waxtaan wi mooy Serigne Aliou. Al Abdoulaye Abdullah lii li li bi di seen journal de la fayda di leen ko doon defal mooy seen Cheikh Ahmad Tidiane bi tey di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu ko mu lewtu yaatu Cheikh al Islam yàlla may ñu ngër mën di ci محمد مختار وآدم طينة محمد يوم البعث راق خصاله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم الخلق تم جلاله عليه صلاة الله ثم سلامه يزول عذاب آن منك زواله عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام الحقير فصاله عليه صلاة الله ثم سلامه يبيد عدو الدين منك قتاله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون عدوي شد منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لاح من فوق السماء هلال عليه صلاة الله ثم سلامه بها خصص الأصحاب طرا وآلا